Serigne Boubacar Faye le jeune mara très pertinent laa leen indil tey suñ nee fay xel yi dina am fu mu dem ndax ku ni fay wax jat wax fas wax galañ wax mistik waaye tamit wax xar fa xuufa loolee waral tax nag ñu seet ci Serigne Serigne Boubacar Faye mi nga xamante ni jamono ji moom la téye ci loxoom ci wàllum mystique ci wàllum mara ci wàllum ñaan yàlla li tax ñu seet si ko nag réew mi yëngu ku nekk a ngi naan jàppal kii bàyyil ki Ousmane Sonko ma digganteem ak aji Sarr ndax Ousmane Sonko dina wuy jéem déet ndax dinañ ko génne ca këram ak déet loolu lépp tey dina leer ak Serigne Boubacar fay ndax Serigne Boubacar fay tey gis ngeen ni mu génnee xaal la génnee nañ waxtaan ak moom ci loolu. nañ waxtaan ak moom ci Casamance gax ga nga xamante ni fa la wala Ziguinchor ga nga xam ne Ousmane Sonko fa la nekk di yëngatu boobu ba léegi gis na policier bi nga xamante ne ñàkk na ci bakkanam ñu ñaanal ko yàlla rek mu xaaree ko àjjana avocat wu Sonko yi gis nañ seen discours yi ñu ba ci avocat ki nga xam ne moom mooy Adji Sarr maître El Hadj Diouf sëriñ bi am na lu mu ko gisal ba ci moom ba ci moom Adji Sarr sëriñ bi tey yaakaar naa bu Adji Sarr seetaanee émission bi dina dina dina dellu ginnaaw ndax sëriñ bi am na lu mu ko gisal te am na lu mu ci war a wax dañu bañ a guddal waaye fi may tëjee rek mooy colonel bi nga xamante ni tey moom mooy Moussa Fall sëriñ bi tey gis na ko balaa boobu dañ koy bàyyi moom sëriñ Boubacar Faye mu nuy mbokki internet yi nga xam ñoo koy seetaan sëriñ bi bismillah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawma din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdaalin ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ñu ngi lay fay di nuyu waa Sénégal ak waa bitim réew di rafetlu tooy teewaay bi nga xam ne moom ngeen ñëw fii teew si ma seet si ma ndeysaan macha allah sëriñ bi mbégte la ñuy am ak contentement waaye tamit xam ni dinañ fi jàng te dinañ fi jëlee njariñ mm. loolee rek ka tax ñu déplacé wu ñëw seet si la fi ma bëgg njëkkee waxtaan bi mooy ci may gi nga xam ne suñu borom may na la ko danga nga di pël sant fay itam nga am loo xamante ni da ko donn waaye am loo xamante ni da nga koo jéggaani dem jàngi ko jamono ji yaa ngi seet te li ngay seet ute naag di sa li morom yi seetee mais sénégalais yi mu leen ko ba sa seet lu waral loolu. waaw xam nga boo gisee loolu rek seet bu wér. Mhm. moo am solo. ndax man su ma lay seetal. Mhm. duma la laaj tur duma la laaj dara. nan wax li nga xam ne moom laay seetee ma ni la temps laay seetee ndax ñaar laay seete kurus ak kaamil. allahu bu fekkente kurus bi comme ça moo la gënal ñu seetal la ci kurus bi. bu fekkee kaamil bi ñu seetal la te duma la laaj tur. Mhm. duma la laaj dara. da ngay def li nga war a def rek. nga dugal ma seetal la wax la lu leer nañ. wax la hmm? loo xam ne yow di nga dem ba tegal sa bët. waaw waaw. te nit ki da nga koy wax ba wax ko loo xam ne dundagu ko nga ne ko di nga dund lii di nga dund lii hmm. mu dem ba gisal ko sa gisal ko boppam gis nga ay audio laa yor comme ça ñi nga xam ne dama leen di seetal ba ñu gis hmm. ñu ni ma lépp loo ma waxoon gis naa ko gis naa loolu xam nga lu am solo ba am solo mooy ijaaba eh. ijaaba boo ko amee képp koo seetal barke alquran karim xam nga am na ñoo xam dañuy wax koo xamul turam xamoo tur waajuram lan nga affaire bi du foofu de. Mhm. mayu bi suñu borom la. dëgg la. lii kenn mënul wax moo ma jox xam-xam bi. Mhm. suñu borom moo ñu ko kii ndax sa am na comme ça suñu maam ñu koy wax Omar Jamsire. Mhm. boo demee côté Nguer Malal côté Ñoomre Louga. côté Ñoomre. dinañ comme ça ñoom xam nañ kooku mooy kan. waaw ndaxte nekkoon na koo xam ne gis nga su ma fa demoon ni mu ni ma ni mooy sama maam. yàlla xam na ni ñaari loxo lañ may nuyu ndaxte ni mu meloon ci xam-xam mhm. kon lu am solo ba am solo tamit nit ki lépp looy def na ci seet suñu borom ndeysaan boo ci oh. boo ragalee suñu borom rek yàlla xam na ni képp koy ñaanal mhm. yàlla xam na ni day jëm ba gis résultat lépp loo ko defal da koy mhm. gis mais sëriñ bi dafa am loo xamante ne daf ñoo jaaxal ci yaw muy jat yi ngay def jatu pël yi jël nga ci cosaan bi tamit lu bare baree bari waaw boo gisee loolu xam nga pël dafa day wax saalaali muhammad waalaali muhammad mhm. te teewul comme ça xam nga warul wax loolu waaw dafa yàq baat bi de mhm. salli muhammad wa ala ali muhammad la war a wax hmm? te teewul képp kuñ ci jàpp dañ lay jàpp képp kuñ ci kii dañ lay jàpp te dañ mhm. lay comme ça buñ la fasee ndax de am na bu fekkee diggante nit comme ça comme ça boo ko boo fasee am na yoo xam ne bu fekkee neewi neewi la dañuy dañuy wax saalaal muhammad waalaal muhammad muccum buub muccum buubu muccum sir burdu gi kilmi laxñal buub mhm. foofu ngay yem ba ilaa aaxiri mhm. boo ko defee comme ça bu fekkee neew neew yi dafaa nekkoon dina rees bu fekkee xam-xam rek mu ngi ci pël waaw loolu moom yàlla may na leen ko mhm. mais aduna bi moo doy waar léegi waaw te yàlla xam na ni damay gis naan comme ça nit naan xale bu ndaw nga war a liggéey danoo xamul rek xam nga ku nekk ak mayam waaw koo dem ci mayam nga xeeb sa may. dëgg la loolu du ci man suñu borom la. allahu akbar ndaxte man ba ma comme ça 2005 laa dem Daara. 2000 2000 2009 ma wàccee. Mhm. nga comme ça. ma nekk waaw mais 2018 laa ñëwaat. te ñëw naa fi ba yàlla def am kilifa yoo xam ne ñu ngi ci nguur gi yàlla xam na ni maa ngi jëflanteeg ak ñoom. la sax dañuy bëgg a dem fenn barki alquran karim bu ma dañ may woo. waaw. min ma sëñ bi léegi damaa bëggoon a dem ma ma xool ko ma ni ko déedéet jaarul ngay dem yàlla xam na ni day day day day bàyyi comme ça yoon bi ndax lu tax ma nekk xale te ñooñu yàlla xam ne boo gisee. Mhm. nga xam ne ñoo sama papa ñooy maase. te mhm. boo boo boo gisee dama leen di comme ça dama leen di wax. ni nga leen di teg ci axe teg leen ci programme. te teewul noonu lañ koy defee. mais am na lu ma bëggoon ñu waxtaan ci balaa boobu da ngay téye micro bi nii. Mhm. ndax internautes yi dañoo bëgg a gis sa kanam gi macha allah. bëri na ñoo xamante ni dimbali nga leen ci ba ci koo xamante ni jigéen la boroom këram mu woote may ko baat ci téléphone ñu war a wax ci kanamu mbooloo mi que ni may na ko baat ci kanam ay wéyjuram simila ak saala nga liggéey ci loo xamante ne ba mu demee ci wéyjur yi dafa changé décision sëñ bi loolu jaaxal nañu tam waaw boo gisee loolu xam nga yàlla xam nañ ci guddi maa bi waaw ci guddi mi maa bi laa bind li may bind ci guddi maa bi la ma jox turum turam ak turu jëkkër ji ne ma suba la ñuy dem ñu nag ak njaboot ni maniko jox ma tur man suma xasse xolo yalla xamne suma bindul sax mhm. yalla xamne ni yalla day nangu mbir mi la ilaha may bu sun borom la waw nit ki kenn munul dara ndeysaan lu antu sun borom la mhm. gis nga nit ñi lolu lañ wara xam mhm. gis nga ñi may ñu ci tek beut may defal nit ñi gis résultat du tax man naagul dama xam ne lépp borom dama koy delo ak sun borom ndeysaan ndax da yalla xamne ne gis nit nan ma dem na fune ñu lek sama xaas mais loolu comme ça lu ko waral. Mhm. am na ñoo xam ne dañuy gis nit tedd ci ñu ni ah taxal ma tedd ci. Mhm. te affaire bi du mm, mm, mm, lu dul dégg du yàgg. dégg la. gis nga képp koo xam ne mu ngi ciy dugg. te yàlla xam na ni nekkoo ci comme ça lu comme ça lu déggu. Mhm. comme ça nan dem. yàlla xam na ni di nga gis ñu bari ñoo xam ne doo leen gisaat. yàlla xam lii moom man maa la ko wax. mais nopp dafa mel ni da nga koo da koo donn mais yaa ngi ciy def loo xamante ni wax dëgg yàlla. Mhm. nopp sénégalais mérite mérite nga yow sénégalais décoré la ci loolu. Mhm. boole ñaari nit yombul de. lu ko waral. man moom yomb na ci man. Hmm? ndax xoolal nit woo la waaw ñu war a kii suba. waaw ñu war a ñu war a tas suba. Mhm. mu woo nga def li ngay def ci guddimaa bi mu jàpp ci guddimaa bi. waaw yombul de. yombul de yombul de. yombul de déedéet. te lan moo ko war am nga affaire bi du mën de. Hmm. suñ borom la. allahu akbar yàlla oh. xam na ne man lépp lu may def. ndeysaan lépp dama koo bàyyi ak suñu borom ma xam ni lu antu moom la. yàlla xam na ni comme sax am na koo xam ni moo may moo may tabaxal benn kër. ci loolu laa doon jëm si ndax bi muy mm. jëflanteeg yow. Mm. yorul woon. Mm. mën naa ni maag moom a nay maag moom ñoo yemoon dañ doon dañuy taqale. nga jëflanteeg moom mu dem ba jamono ji di la tabaxal kër te image yaa ngi fi. waaw boo gisee loolu nga xam ni nekk ci déggu rek moo am solo. Hmm? gis nga boo déggoo amul looy ñàkk te nit ki nga wax dëgg nga def li ngay def lépp looy def nga nga ciy seet suñu borom barke alquraanu karim te tamit nga ànd ak ijaaba ndax nit ki mun ngaa yor ay téere téere mhm. nga faja ngay defal ngay bind ay téere yu am nga des fois dangay gis sëriñ yoo xam ni dañuy lal yoo xam ni yu gudd la ay xaatim yu gudd te fekk duñ ci faj dara hmm? tam des fois nga am loo bind rek waaw defal ko nit mu am mu gis dara mais boo gisee kooku xam nga alal mhm. dafa am ci lu ñu koy bunt yu ñu koy jaaree. Mhm. des fois da nga koy jaaree gis nga yaa fattaax yaa razaq. Mhm. tur yu suñ borom yu tedd yooyu. Mhm. des fois xam nga fattaax mooy ubbeeku di nga ubbeeku ci nit ñi. di nga am nit ñi waaw kon waykat yi xam na mooy comme ça bi may lay wax. yaa fattaax yaa razaq di nga am nit ñi te di nga am alal. fattaax di nga am nit ñi. razaq di nga am alal kon ñaar yooyu dafa am liñ koy adat. waaw am lu ñu koy def. waaw defal la ñu dégg la te nit ñi dañ lay soog sopp. ndeysaan. ndaxte boo amee nit ñi te amoo alal doo dem. maara day taali. nga am loolu de moo ma dal man mi waaw nga am alal. waaw comme ça nga am nit ñi te amoo. alal alal doo dem tamit. waaw kon faa ñaari yooyu nga boole ko. Mhm. te adduna bi danoo nekk foo xam ni. Mhm. danoo toll foo xam ni almaalu miftaahu kullu baabi. Mhm. alal bunt bu mu fëgg mu ubbeeku. Ah, waaw bunt bu mu fëgg mu ubbeeku. kon nag. ku ko amul. ah dina dooy waar ci da ngay xaar deuxième rang. ndaxte bari na yoon yu ñu koy jaaree tamit am na yoo xam ne ci gëléem lañ koy jaaree gëléem. Hmm? ndaxte gëléem dangay gis ñu naan comme ça am nga gëléem nu mu nu mu kiiwee. moo sut ay ay baayu Mali. waaw di di comme ça bu buñ la defalee ni lay defal dinga sut say maas ci alal comme ni gëléem sutee ay baayu la. Oh. kon alal comme ça am na fu ñu koy jaaree dafa bari. Mm-hmm. ndaxte. afala yanzuru ilal ibli kay xuliqat hmm? xam nga ibli mooy mooy gëléem hmm. kon dafa am pour koy jaar ba defal la liñ lay defal ñu dëgg la ci alal pour di waay tuddee borom alal ñi boole la ci macha allah gis nga secret dafa am de. lu am solo ngay wax. secret dafa am lu am solo ndeysaan. mais euh, fa la ñuy jàll dugg ci actualité. Mhm. ndax mën naa ni euh, Thierno Boubacar Faye mi nga xamante moom lañ jàkkaaloo di sama invité tey bu ñuy waxtaan ak moom ci xam-xam duñ fi jógee ndax bëri na ko macha allah waaye tamit bëri leen na résultat macha allah moo tax actualité fi ma ciy njëkkee moom mooy mais balaa maa dem ci actualité. Eh. dafa am loo fi génne ma gis ko ci say bagage eh. muy semmiñ nga ni semmiñ kenn du ko gor moom mooy goraate. Eh. waaw boo gisee nga def ko ci leket def ci ay xeeru tiim. xam nga des fois am na garab boo xam ni dañ koy wax war ndunaaki. war ndunaaki. waaw pël moo koy wax war ndunaaki olof di ko wax rey doon. Hmm? garab boobu. waaw xeex rek la mën. xeex kasse dafa doy war gis nga ki bi ma nga gis moy semmiñ bi nga gis waaw xam nga day gor mais kenn duko gor hmm semmiñ fo gisse da day gor mais kenn duko gis nga sangat boobu buñ la ko hmm ba nga sangatu ko nit sa bu waxe ci yow laa la wax toke mhm. lay don ci moom toke lay don ci mom kon nga xamni bo gisse gisee bi rek am lu muy dox lo fi gis amna dox la ilaha kon nit ki lu am solo bu am solo karangi dang ka wara am force jamono bi ku amul kaaraange. yaa ngi ci danger. yàlla xam na ko ndaxte li ma gis ci réew mi. Mhm. dafa doy waar te jamono dina ñëw di mm. dégg benn woykat boo mm. xam ni. Mm-hmm. dinañ ko dégg ci ci loo xam ne ci mbiru xaalis ci loo xam ni alal xaalis moo tax mu dugg ci. comme nan ba mu indi ay coow. mu dugg ci loo xam ni. Mm-hmm. comme ça xaalis comme ça def loo xam ni da koy rëccu te nit ñi dañ koy wax loolu dina ñëwi ci kanam. ci xaliss lay doon wa ci ci mbiri xaliss lay doon ya, te nit ki ya. lepp loy def alal am na lo xam ne mooy duggal ci phobie alal mën nga ka amé ci no mm-hmm. xamni mm-hmm. lewna leew na mm-hmm. nga ka amé ci mbiri alxuraan mën nga mën nga ka amé ci mbiru sarax ndax sarax mom dafa yag surtout ndax te jamono jamono yi ki musa yonenti yalla musa Moussa ba ñooñu rayé sen papa ba ndax alal dan ko ray ndax koku milliardaire la mais amul amul soxna amul doom amul ku ko doon. Mhm. te ñooñu kooku mooy seen papa bu ndaw léegi ñu bugg kaa ndax pour doon alal ban ko rayee ba pare nag ñu dem ba exemple laa la jox ñu dem ba ngent mhm. jin ko waa ngent coow li bëri werante bi bëri léegi ban ko defee léegi ñu ni comme que kii kii na nan ñu woo Moussa ñu ni nan laaj suñu borom léegi ban leen ban laaj suñu borom dama koy tënk rek ñu ni ko nañ génné micro bi nañ génné nak waaw nak bi comme ça xalé bu woo xam ni dafa yaru moko mom moko moo ko yor. Mhm. dem nañ fune dem séras dem fune ne. Mhm. gisuñu nak boobu. Mhm. léegi ban ko rayé ñé nee nan gi lañ jël. waaw ñé nee nan béjjën yi. ko ki nga xam ne la ray mu juk tok mu ni diw ak diw ñoma ray té dab bi kon koku sarax bi moko feñal waaw bo mo indi suratul baqara. baqara. gis nga baqara. waaw boo am na loo xam ne da koy bind. Mhm. boole kook soow nag. Mhm. dina la dégg ci alal. Mhm. da ngay am alal ba pare am ay nag. man mii boo gisee man sama benn nijaay moo ma yoreel samay nag. yàlla xam na ni su ma la ko wanee kon nga xam ni secret man yor yemuma ci mbiri ñaan bi. dëgg man dafa am ci leneen loo xam ne maa ngi ci. barki alquranul karim kooku moo ma yor moo ma moo ma yoreel samay nag kon lu am solo ba am solo mooy que yore secret. waaw gis nga secret nag ñun dañuy dem bay jaaxal suñuy mbokk naan ñii moom. fan lan amee secret pour alal. Mhm. ndaxte ku jël comme ça comme fekk la nga xam ne yoro woon dara. Mhm. defal la ba nga xam ne ñu lay tudd ci alal. waaw waaw. Mhm. gis nga kër boobu mu mel rek lu ko waral gis naa nag kër gi ñu lay tabax xam naa nag waa ji du ñàkk bu ñu jëflante maa moom mu bàyyil ma fa nekk. amul benn problème incha allah. fi ñuy jàll mooy actualité. njëkkee ko ci Adji Sarr. Ousmane Sonko procès bi le 16 la. sëñ bi nga gis ci procès bi. waaw man li may procès deux ans ëmb deux ans. Ah, doy na waar xam nga. ñëpp sonn nañ ci mais li may li may faral di wax Ousmane Sonko dama ko doon wax dama am na kii bu ma waxoon yàlla xam ne li njëkk muy kii ak kii. may Adji Sarr may ñaa ma may ñaa ñaa boobu laa waxoon na wàññi wax bu wàññiwul wax mun naa dem ba yàqal ko lu bëri. ma rédacteur ndax di dina dem ba wax loo xam ne lu ëpp la. Mhm. mu indil ko ay jafe-jafe. yàlla xam na ne lii laa doon wax. Mhm. mais lu lu lu lu am solo ba am solo. Mhm. moom na moytu xam fu muy teg tànkam. moom Ousmane Sonko. ñu neen ko jàppale ñaanal ko. na ko patriote yi jàppale. ndaxte dafa dafa wéet fu mu toll nii. te dafa soxla wàllu. ndaxte ña comme ça dafa am mbir yu ñu koy def gis nga. ñi nga koy def ci wàllu mystique. wala ñi gis ñu koy kii yëpp. waaw dañ leen téye ci mystique. ñi koy. ñi dem ci comme ça ñi koy wor. ñi koy wor ci mystique. maanaam da nga bëgg a wax ni ñi koy wor ànduñoo ñoo seen sago dañ leen a moo tax dafa am luñ luñ leen def. gis nga ñoom ñëpp man yi comme ça li dañ leen a am fu leen jaar. ci mystique. ci mystique. moo tax réew mi dafa nekk koo xam ne ku oyof bopp yàlla xam na ni doo fekk doo ko fekki. Mhm. am na temps yoo xam ne dama doon hmm? wax mille 2023 bi ñuy dugg dafa doy waar ku mën na nga aar sa bopp am loo def ci sa yaram. mais nguur gi comme ça dama lay wax comme saa li nekk ci àdduna bi. waaw moo doy waar. mais lu ñu mën a xaar ci procès Ousmane Sonko Adji Sarr bi la 16 bi. waaw coow li bari na Ousmane ko xëy na du wuy ji xale yi barricadé nañ foofu noonu gendarme yi. ñi ngi ah, ñëw gis naa ci coow daal gis naa ci coow de. ci coow la yam kase. ah wax comme ça moo tax ko mani la xale bu bu ci kiiwul. amul kaaraange amul kaaraange. dina doy la suuli. dina doy wàcce ci yow ndax ci li ci nekk moo moo li ci laxasu moo bari ndaxte foo xam ni. xam xoola comme ça nguur jar jarul ñuy suul lu mais ñi mais ñi xam dëgg dañ naan dossier bi mhm. nekkatul dossier boo xam ne ci yoon lañ koy àtte mais dossier mystique la mhm. xam nga boo gisee loolu man dama la ne mhm. gis nga ci nguur yi waaw am na ñoo xam dañuy suul lu deewagul am na ñoo xam ne xoola sacrifice yu doy yooyu dañuy suul lu deewagul boo gisee ci nguur yi accident yi am yooyu yëpp dafa am comme ça yu doywaar yu ñuy def ci réew mi moo ko waral maara day taal di suul lu deewagul di sacrifice yu doy waar yoo xam ni ku oyof bopp rek ci yow lay jëm. lépp ngir élection yi di ñëw. moo tax ah, xale bu ci oyof bopp. Mm-hmm. dina doy waar ci yow. ndaxte yàlla xam na ni barke alxuraanu karim wax ma lépp. Mm-hmm. mais li may gis ci réew lu ñëwagul. ci sababu colonel Moussa Fall mën naa koo wax ndax moom jamono ji moom mooy commandé armee bi moom moo leen di wax def leen mm-hmm. bàyyi leen indi leen yóbbu leen. waaw man moom su ma sañoon ñu ñu wàññi kii bi. moom musa Fall. waaw comme ça ñu bàyyi comme ça ndaxte. ni ñuy def loolu nekk na loo xam ne lu day waar la. waaw dëgg la. ndaxte am na loo xam ne dañ ko war a artu. waaw bu fekkee mbir yi wa voté. waaw nan comme sax man bu ma nekkoon kii Ousmane Sonko du ma nekk fii naan ñii xeex leen def leen nii def leen nii ku ne na defar kii bam carte d'identité mhm. bu boobaa. Mhm. mu voté ku ko neex. Mhm. loolu buñ ko defoon rek dina fay wax jëpp mais am na ñoo xam ne ñoo bëggul wax ji foo kii yem fii moo tax. mais dafa am koo xamante ni moom moo jël dossier bi en main. mel ni mom mom moom sénégalais moy maître ela Diouf gis nañ bo ba léegi coow mom moko gaddu ko lu Ousmane Sonko taqee rek mom da ci dugg xex Ousmane Sonko wa xam nga moy lima la wax rek Ousmane Sonko bayiwul bopam ci mystique bayiwul bopam de mais mais ñu Ousmane Sonko dafa tolé nak lu mu mën ci kiiwu bopam comme ça lim mën ci yokku yokku kiiwu comme ça karangé bopam mhm. nako ko def hmm. ndaxte nit ñi dañ ko djéku ci mystique dañ ko djéku de dañ ko jikko ci mystique kon est ce que du ko jappé ci auto police bi duggal ko ci la lañ la ah duma la wax fofu la dé mais xam nga nit ñi mom dañuy def waaw wax nga deug fuñ tollu dañuy def di def ay mbir yo xamni do ko ki mais bu amul won bu amul won karang mhm. day fekk doyna war ci motax fuñ fuñ tollu ni mhm. yalla xamna ni ndaw bu ci amul karang lu nara dal Ousmane Sonko wala mu nara dal sa kaw lay dal Allahu li mon mal ko wax lu am solo bu am solo moy mhm. nit ki karangi dafa am solo nit ki saa boo yeewoo sax da nga war a am yoo xam da nga koy léemu waaw doog a doog a bu ko defee dina la dina la musal ci yi nga xam ni musiba ay balaa yi nga xam ne ñëw macha allah mm. ah Thierno am nañ mbégte am nañ contentement jàkkaarloo ak sa jëmm ji macha allah nga génne xam-xam génne révélation dañ lay bàyyi nga tàggu mbokki internet yi te xam ne ñi ngi dem waaye itam ñi ngi ñëw duñ fi yàgg dara mm. waaye li may tàggoo mooy yal na yàlla def ci réew mi jàmm amin waay nañ ñaan ci réew mi jàmm loolu rek moo am solo ndaxte li ma gis doy na waar. Mhm. ndaxte. Hmm? li ma gis doy na waar de yàlla xam na ni. xam nga man. yàlla xam na ni du comme am na ñoo xam ne ñi nga xam ne jëflanteeg ñoom. Mhm. ñoom xam na man maay kan. xam nañ ki yéeti. mais lépp dama koy teg am na koo xam ne barki alquraan karim kilifa la. Mhm. nee na man dama koy yokku fit. ndeysaan barki alquraanu karim. bëri na ci morom de. ndaxte lu ko waral. mooy que. ñoom dama am loo lu ma lu ma jëflante ñoom ba mu gisal ko seen mhm, mhm. kon nit ki lépp looy def rek nañ ci seet suñu borom moo tax boo man li may li may waxaat mooy que ñi nga xam ne dañuy dañuy jël xaaj nit ñi ba pare di leen bloqué wala buñ leen woowee di leen jël mhm. loolu damaa bëgg mu jeex dëgg la yàlla xam nañ su sañoon day deñ bàyyi naa ko sa loxo sa combat la ndax boo gisee loolu barki alquraanu karim man su ma sañoon du ma génn ci kii mais dafa am ñoo xam ne dañoo yàq mbir mi waaw ku ne dugg naan damay kii te xamoo fan la cosaanoo. Mhm. xamoo fan la jóge mhm. kon nit ki lépp looy dugg rek nañ ko xool seetaat ko segg ko ba nga xam kii mooy kan. Mhm. nga soog kaa jox sa xaalis. macha allah allah.